horrific massacres during ethnic clashes in the state of Jonglei, South Sudan. They are pouring into the upper Nile state. The problem with uh, Low Nuer and, and has been there for a long time. And usually it affects us here in, uh, in our countries. Uh, because what was happening uh, is back and forth uh, uh, situation. So uh, I think disarmament is the first step, and then consolation afterward. Close to 120,000 people are fleeing the fighting in their region and heading to another part of the country. UN Humanitarian Chief Valerie Amos is on a three-day visit to the conflict-ridden region of South Sudan, voicing concern that the violence threatens to destabilize the world's youngest nation. She said she was concerned about the scope and magnitude of the violence in Jonglei. The United Nations is also worried about tension between Khartoum and South Sudan. Tens of thousands of refugees are flooding into the south from Sudan's civil war border regions of southern Kordofan and Blue Nile. Of course we're not ready for uh, any kind of uh, major movement from uh, the north to the south, given what we're dealing in South Sudan already. Capacity is already extremely stretched, and the challenges that we face in terms of uh, raising money for air operations, because the transport system uh, is really non-existent, the World Food Program said that it is preparing for up to 500,000 more refugees to arrive. That is if Khartoum continues blocking emergency aid into the war zone. That's Weekend Spectrum this week. Join us next week for a brand new edition of the program. Until then, I am Deiko Mademba. flourishing city of 4 million inhabitants and the seat of the African Union. It was here the Organization of African Unity, which transformed into the African Union, was founded in 1963. The 54 nations that make up the African Union are represented here. Follow me, as I also follow His Excellency the President, Sir President Light of the into the forum of the 18th ordinary session of the Assembly of Heads of State and Government Summit here in Addis Ababa. baran on a baraka thank you nowaari merci beaucoup jokko njal invité kati kiwsel bala kiliyano tentula yenna net ɓoɓɓe to tombo menna ka bo sayin wato ka dum internet to wala ka call la mel be de mala pour ye ku jama gagner même bo koni na lafta pour ke la loyalty point sol na albe men mu ka ila kisel line la nyami i hajjo ka wala kiwsel ba faare ko alnimbara kiwsel sunu bos the Gambia's quality network indi naate kappilindi ointemba kayro mumpijam bere alo gambia ko yirwa mumpijam bere alo gambia yapo mamba boy ma yapo mamba boy ma kapo kapo mamba boy ma kapo dino lu tema badi malu tema alfa lu tema jame otro sonko podol kanyo Kampele ko tele Kampele ka jele Kampele munela Mungu kame kankele Just Entertainment ku sopp li may def la tax na ba damay liggéey te duma tala waaye bi may waaj a liggéey si suma jabar nee na ma nijaay añ sir amal naa la lu neex. baax na waaye bi ñu agsee kër ga fekk nañ soxna si ci waañ wa muy ëlbati cin li biñ xamee ne maalo la mer nañ toog ci saal bi di seetaan télé waaye ci bu ñu xet ba duggee lan lañ taabul bi ci diiri benn minute ci bi añ bi yegsee Xasan jeexal na ñaari palaat binta lekk ba matta làmmiñam ba man nag lekk ba caalit yow soxna si maalo bi mooy ban maalo sa bi mooy maalo si kan amut pënda te amut gom ku ci bëgg a xam lu leer wooteel 42 22 329 wala 76 34 392 maalo bi gën ci maalo yi déggoon naa la ngay labat de xanaa lii mooy may gu njëkk gi waayow ah jaaxle rek ma taxaw taxaw fi ma nekk nii way lu la ah, jaaxal war a yóbbante suma njaboot gi sa Sénégal waaw ah foo ci dem rek ah. mu cher cher goo xam ne ah. yónnee xale mu ñëw fii sax moo gën a yomb loolu laa ilaha illallah nee naa la kaay ma lay gindi. waaye gindi si la di la yëgal di wax li xew ci réew mi. gam poste bu Gambia. ak la poste. waaw ca Sénégal ñu def foni transfert. pour yéen mi ngeen xam ne. da ngeen am njaboot Sénégal. war leen a yónnee. ndax xam nga. lii soo ko yóbboo feneen. billaahi nañ laa caaj. dafay dem ba nga ne sax. nga fayal xale ba ci moto Sénégal mu ñëw fii. moo koy gën a yomb. waaye gam poste lu ndaw lu ndaw lu tuuti lu tuuti lañ cay jël. su ma ko yónnee fan la koy jotee. dama ne foo dëkk rek la poste sa boor boo nee gindi nii rek la poste ne nii

impose defati na ko defati na lu baax ci ñun koo xam ne yaa ngi am mbokk senegal wala ngay sénégalais bu dëkk ci réew mi fii tey bu ko yónnee sa njaboot bul sonnati bul tàyyeeti bul demati fenn waaxul daabu ñëw ba gampoos foo dem ci réewi Gambie fii am nga fa gampoos nga dugg ne ndaw si mu ngi nii xaalis baa ngi nii Sénégal laa koy yónnee kii laa koy yónnee nii la tudd fala la dëkk mu jugal la ko ca biir muy àgg mu ne ko rokki mu ne ko rokkam mu jox ko xaalis bi te la ngay fay do fay yomb ba dee moo gën a baax bu leen demati fenn ah. waaw ñu ne Sénégal nag ku ne Sénégal te bëgg a yónnee sa mbokk xaalis fii ci Gambia demal ca la poos mu jotadi ko gam gampoos ñu jotadi ko sa nit ki jeex na tax c'est vrai jërë ngeen jëf. network be to tombo menna ka bo sayin wato wato ye text ki wala ka dum internet to ka call ke ka bo ila kiwsel lano to e be la mel be de mala pour ye ku jama bokoni mobile phone sol paransorol nafol tishatol kisel sijulol panol tasalol koppol anin ku jama jama na lafta pulkera loyalty points sol na albi men kena dorom wala muka star 445 la hewa loyalty program manke nyo saboti mo bele ka gani ike munafa ila kisel lainu la nyami i hajo ka wala wo nyamal kiwsel ba faale ko alnimbal kiwsel sunu quality network